constitutionnel kay jeexal nañu nag coow li nga xam ne rek moo juddu woon ci ñaari date yi ñu jàppoon ngir élection présidentielle yi fi mu toll nii nag li des rek mooy jublu ci liggéey bi waaw présidentielle kay fukki fan juróom benn nag moom la candidat yi am ngir mën a dagaan baatu askan wi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Vox Populi juróom-ñaari sages yi nag ñoom mujj nañoo fekki président Macky Sall ba daal tënku ci ab campagne électorale a ci weeru mars bu zéro heure jotee ba aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci joojee nag CNRA moom ma ngay dellu suwaat nag di àddu ci lu jëm nag ci mbirum temps d'antenne yi soxal candidat yi war a bokk ci élection présidentielle yi diir bu gàtt bi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu campagne électorale yi Abdoulaye Makhtar Diop nag ma ngay fësal rëq-rëq yi nga xam ne rek nemmeeku na ko ci scrutin présidentiel bi ñu nekk parti démocratique sénégalais nag laaj bi yéenekaay bi samp mooy ndax mën naa attaqué waat nag décret Sall boobee ca conseil constitutionnel lu mu ci mënti doon daal le quotidien yëglekaay moom ma ngay ne ne candidat tànn nag fukki fan ak juróom la ñu am ngir ngir mën a amal campagne ba dagaan baatu askan wi campagne électorale bi nag daañu ko door niki ëllëg ci samedi ji bu minuy jotee lay doon yéenekaay bi di ñu xamal ne jamono ji nag conseil constitutionnel dakkal na mbiccoog mbaaloo gi la muy sàkku rek mu ñu daal di jublu ci liggéey bi liggéey boobee nag naam tàmbaleegul waaye jural nay njàqare nag ñii di candidat yi nga xam ne rek ñoo war a dem ci élection yi yéenekaay bi di enquête nag ne ginnaaw bi ñu jàppee dat bu gaaw candidat yooyee nag ñu ngi am ay gàllankoor jëm ci ay moyens yoo xam ne rek am nañ ko ngir mën a amal seenub campagne diir bu gàtt bi ñu ko amal lu yées ñaar fukki fan moo des ci élection yi nag te fii ñuy àddoo ngeen di teewlu yéene kaay bi ne nag kenn xamagul lan moo nekk ci agenda wu yooyu rawatina nag seenub taxawaay ci bureau de vote yi lum ci mënti doon daal élection présidentielle yi nag daañu ko amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars libération ma nga cay dellu siwaat na juróom-ñaari sages yi kay jamono ji nag adopté nañu décret bi nga xam a amal élection présidentielle joojee nag Sud Quotidien moom di àddu jëmale tey ji nag ci journée internationale bi ñu jagleel jigéen ñi nag yéenekaay bi nag ma ngay sargal jigéen ñi ak di leen delloo njukkal ci seen taxawaay ak jéego yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal saay su nekk naam yoon bi gudd na te metti na waaye terewul nag ña ngay wone seen bopp saay su ne ku ci mel ni médecin colonel bii di Yohani Wanja xarañ lool ci wàllum liggéeyam nag tey ji yéenekaay bi dellu suwaat na ci moom Anta Babacar Ngom mi nga xam ne rek moom képp mooy jigéen bu fas yéenee dem ci élection présidentielle yi juróom fan tey ji ci weeru mars atum 2024 nag thème bi ñu ci tànn mooy investir en faveur des femmes accélérer le rythme l'observateur moom daal di defub seetlu nag jëm ci soxna yi nga xam ne rek ñoo nekk ci monde rural bi di amal liggéey bu am solo nag te kenn du leen dégg ci leen ku ci mel ne Satu Mbeng nekkoon ab paysanne ba mujjee doon ab présidente bu groupement de promotion féminine Koddu Caw moom di infirmier chef de poste bu ngox yi moom nag mi ngi xam xamle ci biir yëglekaay bi ne yàgg naa réewle ay jigéen xaaju guddi di jëfandikoo téléphone am mbaa muy taal ay tekebe moom ab bàjjanu gox la moom liggéeyam bokk na nag ci gën a sensibiliser askan wa yeewoo ca Kaffrine ngir ñu daal di dakkal nag lépp lu jëm ci wàllu accouchement à la mu fekk jamono joojee bés bi le jour moom itam daal di def taxaw seetlu tey jii nag ci soxna yi nga xam ne rek ña ngay amal liggéey bu am solo ci ëttu tasukaayu xibaar yi dellu suwaat na moom yéenekaay bi nag ci agression bi ñu agressé nag kii di may Maimouna Ndour Faye ak Absa Anne ci biir yëglekaay bi nag ñu fekk fa Oumy Regina Samb moom ma ngay xam ne ne ay drague moo tax nag mu daal di arrêté chronique judiciaire bi nga xam ne rek moom la doon amal Aminata Diop Diop nag dellu siwaat ci convocation bi ñu ko convoqué woon ca dikk te ci jamono joojee nag ma ngay nàmpal doomam ku ci mel ne Annette Mbaye Derneville Nafissatou Diouf ñoom ñëpp dellu siwaat nag di xamle seenub jaar-jaar ci métier mi nga xam ne rek moo di tasum xibaar yër leen bi la yëglekaay ba sub tey jii nag yemook juróom-ñetti fan ci weeru mars réew mi ko quotidien nag ma ngay delloo njukkal nag képp kuy soxna di yeewoo ci biir Sénégal wala ci Afrique mbaa ca biti réew des ba tey ci yëglekaay bi réew mi people tey jii nag mi ngi doon dalal ki nga xam ne rek moo di saxaat dip artiste di ko ràññeeku lool ci musique bu Afrique ndax baat bu neex bi mu am séq naag waxtaan wu yaatoog kii di Anna Thiaw jëm ci wàllu carrière am jaar-jaaram ci biir musique bi tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale wax ci Europa League ak huitième de finale aller yi yéenekaay bi ne OM de sar ak Elimane ña ngay explosé Villarreal jeexale sunu lamb ma ngay dellu siwaat ci combat royal bi nga xam ne rek jàmbaar production daal dina koy taxawal mu war a dox ci diggante Siteu ak roi des arènes ci weeru novembre bi ñu jëm mbokk yi li gënoon